xale yi

du du du gàllé kenn. voilà fekk am place. ku ne fekk di station bi foofu la nga taxaw. dina xam ne gars yi ñu ngi ko defee nag ko paas. tey aussi bu ma gisee ñu dugg si ñun. bu ñu ko ma ne ma ne moom dafa tekkul dara ci rajo loolu mooy problème parce que ñoom ñoom ñaar ñu mën ñu génne ci benn mbooloo loolu mooy seen problème lii daal ñëpp xam nañu voilà parce que ñoom ñooy dañuy faral pratiquement day xalaat ba tey yàlla ci biir kaso bi. nañu xalaat dina ci taxaw dara nañu tam ñu tam ko ñaan ba pare ñu ñu ñoo ne ay dara ko ñoo ba ko ñu ñaan ñu ñu top ñu xam dara ñu def ali ba tal dara ñu def keneen nañu ne ba ko ñu mak ko ñu xex ba ñu perdi top ñoo ko nek nañu xalaat suñu mbokk yi xalaat ko ko leneen ñu tëri politique yi réew ndaw ba la nek so la jóge dama lañu ba la 23 heures guddi ñaanama ko mu ndaw nangu ba ko da ko la def ba ko ñaan Macky Sall ma def ay ñu ko dogo mu na tabax ci ci ko retraités retraités onze mois en détention donc on a donné ko ci guddi aj bi dañ mën a ñibbi kon nag tey jamono bi sama sama yitte mooy nag sama combat bi la libération des otages politiques loolu rek laay ñaan yàlla donc on doit faire une marche politique pacifique ñoom nag indi nañu violence

trois partisans ñëw fii trois partis ci benn terrain manifestation moom lañ ko def comme amul kenn sax ñu def li ñuy def trente minutes moo des ci affaire yi trente minutes moo ci des daa mooy de vingt minutes euh, ah, taxaw ñu nag ñoom boo nekk parce que maanaam nag ñu ñu taxaw na jóg mooy maanaam manifestation pacifique yaa ngi comprendre pour war Macky Sall que ne ñun pare wuñ pour mu nekk fii nii léegi Barthélémy Dias ak ñoom Khalifa Sall ñoo yónni seen ay nit parce que ñoom fekk nañu fii ñuy négocier ak ñoom pour bañ a yàq xew mi mais ñu fexe ba indi yeneen booy ñu indi seen arme ñu naan dañ ñu jéem a tëbal te Fatick bu nekk ragal Ousmane Sonko ànd ak ragal ci ragal ko ñun man man je condamne la police parce que pas normal ñu ne ñoom ñoo fi ñëw pour la sécurité pour manifestation bi jaar yoon ñu bàyyi manifestation bi am di dégénéré c'est pas normal ñu ne la vérité waxuñu la ñoom ñu toog dal oto dañoo demandé autorisation bi mañ autorisation bi ñëwee ci autorisation bi ñoom dañoo war a maye sécurité bi autorisation kii bi manifestation bi defuñu ko defuñu ko et dafa normal dafa normal te kontaan naa ko di ñetti nit ñetti nit ñetti nit mënuñoo jóge Grand Yoff dajaloo seen mbooloo ñëw fekk mbooloo bu toll nii mënoo yàq suñu manifestation ñun ñoo warul nangu loolu léegi après ñu provoqué waruñu koo nangu opposé am na loo xamante ni waruñu koo nangu suñu biir dañu waxante dëgg ñu bu ñu bëggee yàq suñu manifestation nañ leen déglu xool lu ñu fi indi bu dee bu ñu toppee ñu yàq suñu manifestation léegi ñu bëgg a delluwaat ci tali bi ñu ñuy rayaat suñu biir jàppat suñuy biir daj ko maire Amy Dia moo ngi nii keneen ak keneen kon bu bu ñuy wax ñëpp ñàkk fayda tey bii nii boo waaye xal bi da ngay waxal waa bés la tam ñun ñëpp ñu ñàkk fayda loo xam ne waxam ni moom ñu koo dafoo ñetti personnes ñoo yàq suñu manifestation te ñun ñooy mujjee delluwaat ci tali bi loolu c'est pas normal dèjà ñoo ñu ko fay bu jeexee jaan nañ wax rek ñun ñëpp ay problème mais ñun lu fi am bokk nañ ci ndax ñun ñetti personnes la war ñoon déglu lii li wër yoon jàpp suñu manifestation suñ ko amatul moom nañ bëgg moo fi am waa Kër Bax tey dañoo ñëw pour saboter yaakaar ni mën nañ mënuñu amuñu doole anañu daleen di gis ñoom ñëpp taxaw nañ ñoom Sonko lañu bëgg Sonko lañu gëm pour Sonko gëmuñu la fii nag dañ ñëw ñoom xam nañ lan moo nekk seen objectif mooy la prochaine fois bu ñu demandé ñu bañ ñu autorisé mais Sénégal ñoom moom ndey Sénégal Sonko moom moom ndey Sénégal lépp moo fi am pour Sonko bëgguñu naan les soi-disant opposants souvent ce sont pas des opposants

en tant que surtout nga xam ne FC Bansang bi ci FDD ji bi ci ñu ngi ci ñoo fekk la daal solo Sénégal ci tey ay ay ay moo wax na nii la war a ñëw bu ñaaw bu ñaaw la mën a yem ñun nag leen la ñuy def dañuy dañuy dañuy ñaaw na boole ci woote jàmm ak Sénégal jàmm rek instant bii yor dafa bëri yooyu bëri nañu xaar dañu ñëw bokk na ba léegi si yoo xam ne moo le chef superviseur le gardien de la paix le président de la République moom mi nga xam ne moo yor def élection ñu bëri nag ñu nekk ci unité bi soit dina ne ci biir jubóowuñu te fekk loolu amu ci ñeneen ñu war a yàq ñu waroon yàq rassemblement bi ñoom ñoo ko def te nag ñaawlu lañ ko la lii moo la bañ a am Sénégal jàmm la ñuy ñaan. ba gars yi de dellu à la révolte. jërëjëf Pape. léegi tanto es una vez que ahora vamos a hacer ngir ñu taxawal li nga xam ne mooy suñu kàddu élection loolu mi nga loolu moo ñu tax a jóg ndax man commerçant la ay maa ngi bàyyi sama place ñëw ba fii ngir maanaam mën a déglu message bi nga xam ne maanaam moom la ñu jox ba nga bu ko defee maanaam ñu organiser ñu suñuy élection jàmm na bay di euh, bu ko defee bu ñu demee ci man gàcce Sénégal tànn bi nga xam ne moom la bëgg a tànn loolu loolu lañ bëgg bu ñu sañoon maanaam li nga xam ne mooy ñun Sénégal ñu ne Sénégal dañu jaar ci yoon bi nga xam ne moom la ñu constitution Sénégal may muy constitution ndax am réew waxuñu naan ay ay dialogue ay dialogue réew li nga xam ne maanaam moo koy téye mooy institution institution yooyu nag maanaam pour ñëpp la moom moo am ñëpp ñëpp ñëpp institution yooyu nag maanaam mu jur élection loolu conseil constitutionnel mooy li nga xam ne maanaam tey moom moo ko defal ko mu egsi fii mais Macky Sall jàppal datu élection yi balaa balaa la dilo nga ngay dem nga jàpp datu élection yi loolu nag ñun ñëpp loolu nag maanaam tey jii ñu taxaw ne maanaam léegi yaakaar yi ñu amoon ak yëpp suñu yaakaar yi maanaam tey jii xale bi nga maanaam tey jii élection maanaam dafa amee loolu nag naqari ñu mu ne day woote ay jalo jarab yi ñu woote ñan na fi dajale mooy dajale ay paa yoo xam ne jamonoy sigoor lañ ca am ci ay paa yoo xam ne naka la ay paa combat yoo xam ne dee euh, lañ gën a jege ñoom ñu war a ñu yor ay avenir euh, ñun ay gone war a dugg ci àdduna ah, war a war a am lépp laa amal loo xam ne ñu am ay pétrole am gaz ah, tey tubaab yi teg ci loxo tubaab yi teg ci loxo ànd ak Macky Sall ah, ñu complot suñu réew loolu wax dëgg yàlla loolu loolu lañ bëgg mu taxaw man Sonko nag maanaam ñu ànd ak moom mooy joxuñu benn bu jóg Ousmane Sonko defuñu dara waaw dañ toppee moom mooy discours parcours waaw dañ ko daree déglu ba tey dañ koy topp Ousmane Sonko mu noppi ba léegi lu ñu mës a wax amul benn baat boo xam ne wax na ko ñu mën koo waar waaw lépp lu ñu mës a wax rek maanaam dëgg la di ànd ak moom ñun nag maanaam opposition maanaam opposition bi nga xam ne maanaam moom daje da ñun ñëpp topp nañ ñëw waaye kenn ku ci nekk xam nañ yow yaay kat waaye bu ñu ñëwee fii maanaam ba tey jii lii indi maanaam ñu ñëw fii ñu ñëw fii tey jii ñëw ngir maanaam jàllale message ñu ñëw maanaam yàq xew mi dégg naa ci biir ñu ne maanaam ay nitu Xalifa Sall ah loolu Xalifa Sall da taxaw leeral nee nañ Pape Lamine Dias mi ngi ci ginnaaw ñu taxaw leeral loolu ñoom ñoo ci war a addu te lii beneen yoon mu bañ a amaat ndax ñun ministère mooy réew mi dafa ñoo war a taxaw réew mi teg ko ay loxo yu wóor ndax fi mu ne nii adduna baa ngi dem dañu fi bàyyi dañu Sénégal Afrique dafa war a dem